waaw tey nag dañoo ñëwoon fii ci euh, centre bi dajee fii ci ndimbalu PNUD programme des nations unies pour développement ak ci ndimbalu ministère de l'économie ñu dajale fi maire yi élus locaux yi dajale fi chef de service yi dajale fi autorité administrative yi les partenaires programme yëpp jéem waxtaan naka la ñuy defee ba li waxe waxee ODD jëm ko vraiment man ko jëmbat ci biir commune yi ci biir département comme ñoo ñoo ñoo fi nekkal euh, ce sont des démembre ay démembrement démembrement état bi la bu ñu toogee waxtaan nag am na question yu bëri yu fi jógee day ay réponses yu leer jox jox nañ fi ay aussi ay recommandations yu xam ne vraiment pour lépp pour que ñu mën a jëmee kii fi ci karam pour que bu origine bi yegsee ñu mën a wax ne que vraiment atteindre na objectif xëy na dañu wax na affaire bu bëri na parce que fukk ak juróom-ñaar leen man lu ma sañoon léegi ñu dem ci par ñaar par ñett parce que boo xoolee ne dañoo xaw a cher 17 yi dañoo cher boo leen dañuy cher te suñu mairie yi seen xaalis bëriwul état bi encore xaalisam bëriwul lu mu yaakaar mooy appui PNUD bi buñ sañoon nag dañ koy dañ koy xaaj dem ci ñett dem ci ñeent. dana ñu permettre que bu ñu demee bay def bilan bi xam ne vraiment ñun am na lu ñu bëgg leen ko am parce que boo xoolee OMD jaar nañ fi kenn xamul est-ce que objectif atteint ko est-ce que objectif atteint ko mais moo tax nag euh, bu ñu bëgg a làmb lépp te suñu am bëriwul problème day am dañ ci def nañ leen dem ak euh, lu yem ak suñu moyen ñaar ñett objectif. bu ñu demee léegi vraiment ba horizon deux mille trente dañ ko mën a évaluer léegi bu ñu évaluer pare ensuite ñu jëlaat yeneen teg ci mais vraiment bu fekkee ne dañoo bëgg ne dañuy jël di seet dem ak moom te suñu koom-koom noonu koom-koom maire yi demul noonu yaakaar naa bu ñu ba ci bilan bi bilan bi du demee noonu dina bëri lu ci soxla lool. tey moom day fi ñëwoon ñun ak PNUD euh, ci ndigalu gouverneur. rencontré euh, ñi nek ci dëkk bi pour waxtaan ak ñom ci walum euh, objectif yi nga xamanteni communauté internationale depuis 2015 mom la adopté fi ba 2030 xeyna moy marqué politique publique yi nek ci àddina bi euh, ci kaw nak xeyna lé amna liggéey bu ñu def ba chaque année ñi ngi bind ben genre rapport pour xol fan lañ ci toll mais nat bobu gis nañ ni pour que mbir yi gëna il faut que région yi euh approprier ko et que intégrer ko ñun dañu permettre trajectoire yi définir ñu mën leen atteindre à terme fii 2030. donc tay population yi appropriation bobu la ñu bëggoon togg tàggat ñi xam lan ODD 1 ba ODD 17 si biir ODD 1 lan mo ci et ensuite nan la wara préparer pour Inch'Allah, euh, prendre loolu en charge si nous suivons la dynamique la région bi annuellement créer le même genre ay plateforme euh, pour si projets d'initiative locale yi ñu jël ko en charge ensuite si mise en œuvre bi affaire bi am ay jeexital ci askan bi euh, gis population yi vraiment am enthousiasme et que acteurs dans leur diversité

ODD boobu nga tudd légui muy ODD 5 euh, si li mu ci djublu mom moy que jigen euh ak ñi nga xamante ni gisuñu seen ba légui ci politique économique bi mu nekk handicapé bi mu nekk xalé bi mu nekk ki nga xamante xeyna amul kàddu amul accès ci média yi du wax mais fa mu nekk choono mi ngi koy sonal ñun catégorie yooyu yëpp la gis ni euh war nañu def en sorte que ñu jege leen xam ñoom lan mooy lan la ñu lan moo lañ yaakaar ni su leen ko defalee seen situation dana améliorer wu donc du euh, maanaam conception euh, ni ma ko waxee ci euh, nasaraan léegi tendancieuse mais ñun dañuy gis ni catégorie yi nga xam ni yëpp dañ leen bàyyi laisser en rade dañ leen bàyyi pour compte donc kenn maanaanu leen ci politique yi pour ñu jël leen en charge ba ku nekk gis bopp yokkute su dee am ñëpp yokk ba yëg ko ñun noonu la ñu gisee ODD boobu.